tey jii am na un homme politique pas comme les autres te dama ko waxee woon 2014 tey jii moom moo am waxoon leen ne dinaa ko fexe ba def ko waaye du ma ko defee mukk ni ngeen ko doon defee te te loolu moom moo nekk di am te loolu moo tax fu gaar bu ñu wàcc gaar bu ñu taxaw du am ñu wàcc mais dañuy yéeg. mais honorable yow li ngay tuddee génie politique li ngeen di def. ma ne dama ne la gaar bu ñu wàcc. étape bu ñu franchir jaabante bi ngeen di def nii. loolu la tuddee génie politique bu ñu franchir ci étape bu commencé ba tey. ñu yéeg rek. nañu plan yi ngeen teg loolu ngay tuddee génie politique wala ñuy ngeen may ngeen may tuuti Champ Diomaye. jég sa retiré waat Champ bi joxaat ko ko Sonko delal ko Diomaye nekkuñu ci kase kii que ce soit ñun suñu yoon rek lañu nekk boo ñu fekkee suñu yoon lu ñu lu ñu am yéene la ko ci loolu lañ nekk ñun defuñu génie politique boo xam ne yow doo nangoo jàkkaarloo kenn mi di ci nga nga am loo ko teg. ñu yóbbu ko ca kaso ba mbirum nag ñu amuloo ko teg Karim Wade président Khalifa Sall ñu bëgg koo def Ousmane Sonko fii la ñuy teerale te ñu ngi nekk di teeral. parce que da nga jàpp ne ba tey. parce que ñoom ñu ngi ñoom ñu ngi seen logique. def nañ ko ku da nga jàpp ne ba tey ñoom ñu ngi seen logique. ñoom écarté leen. écarté eh, mais yow kon xanaa gisoo actualité la l' actualité l' actualité bouillante kii ñii ñii ba ñu ba ñu bëggee écarté du tey après les élections Euh, après les élections présidentielles de 2019 lañ nekk suñu tànk booba tey ah loolu nit ñi wax nañ ko si gis naa gis naa ay sorties yoo xam ne ça ça le dit tey jii sax c'est beaucoup plus clair que ne ñoom xam nga bu ñu dem boo demee ba dégg ay kàddu ne ne ne diw naan nit naan waxoon naa président Ousmane Sonko même boo toogoon sa biir kër dafoo dara génnoo di wax militants yi defoo dara toog di julli di xaar élection 2024 doo bokk. ku moom wax jooju Barthélémy Dias waaw loolu kay leer na moom nu mu dem ba xam ne lu mu def ba xam ne loolu mooy am. nu mu def ba xam ko. looloo ma jaaxal. lan nga si door pose cette question. kon kon leer na nañu ne. leer na nañu ne li péripéties yi nga xam ne am na ci depuis deux mille vingt et ba ñu yegg si fi ñu yegg si tey jii lépp daa am lu ko laloon mooy nañ fexe bu mu bokk. parce que effectivement. kon danga jàpp ni ñoom ñii waa taxawu Sénégal wala bokk Barthélemy Diaz contribué na tey jii ci ñàkk bokk Ousmane Sonko ci joŋante présidentielle. non j'ai posé une question xam nga je peux bien pousser ma réflexion vers une question par rapport ak benn benn benn benn benn affirmation quand quelqu'un vous dit que taxaw naa wax ko ne ko yow doo bokk ak loo mënti def. <laughs> léegi nag man je moo pose la question comment nan la ko xamee. mais xëy na lecture am la fu mu ko xëy na jàngat waaw xëy na moom mën na je suis d' nekk lecture am loolu yëpp mu ngi ci mais nag loolu am ci loo xam ne kenn moomu ko nit moomu ko ñun sant nañ yàlla président Ousmane Sonko yàlla da koo teg loxo oui mënoon na nekk leneen mënoon na nekk leneen yëfu nit rek la te il a toujours compris que ne. même Ziguinchor toog nañ ci boolu añ mu wax ma li may wax mu ne ma non c'est pas le problème ne du ne état mënu ma jàpp état mun na ma jàpp waaye état mënu ma tere aussi tamit lépp li nga xam ne sama constitution moo ko may ma taxaw ci thème mooy la résistance mais waxu musu wax na ko génn def interview le même jour ne le problème c'est affaire bi nekkul état état saa yi ma soxlaa mun na maa récupérer waaye fekk na quelque part aussi tamit moom mu ngi lal génie politique am seen contumace bi nga xam ne ñoom ñoo ko créer en toute pièce nga xam ne pour pour la pour le dossier Adji Sarr amuñu lenn lu ñu teg tuumaal doomu gor pendant des années ne dafa violé yàq deram wax ci moom lu ñaaw ñu dem ba tribunal ñu ne corruption de la jeunesse moom tamit yombalal leen ko ba pare ndeke moom tamit yombalal leen ko bi mu bañee dem wuy ji ci l'article teg ko ci contumace bi finalement waaw waaw mu dem wuy ji contumace ba tamit moom xam na xam na fu mu doon dem parce que xamoon na ne parce que il savait vrai nettement que ne fii lay mujjee que dinañ ko teg loxo contumace non su xamoon ne fii lay mujjee moom dina wuy ji parce que parce que su doon fii lay mujjee moom dina wuy ji su xamoon fii lay mujjee dina wuy ji te waa dina wuy contumace tele laa nekk confidence laa lay wax j'étais à Ziguinchor ba may wax loolu ma toog ak samay morom loolu Ziguinchor la président Ousmane Sonko xam na lépp lu muy def xam na ko lépp lu muy dox ak lu muy wax xam na ko. non dama ne la. ma ne la li ma lay wax man maa la ko wax mujjee laa la wax. déedéet contumace bi dina ko éviter contumace bi nga xamante ni jamono ji moom moo ko sonal ba tax ñu mun ci sukkandiku ba génne ko ci fichier parce que bu ko bu ko bu ko bu ko accepté woon nii mais mënoon nañ dem ñoom ñu def seen sentence téye ko sans contumace. vous comprenez dañuy def seen sentence téye ko xam na lu mu doon dox de. non xam nga te xam ne ne contumace kese. xam nga contumace kese moo a ñëw procès boobu sax jàll na. bëgguma ñu ah taxaw ci juriste la. oui bëgguma sax nga Ousmane Sonko. au delà que mu nekk inspecteur des impôts et domaines <laughs> dafa def dafa dafa dafa juriste la xam na lu bari de. sénégalais yi xam na nag xam naa nag des na ñu gëstu ko. surtout ba du kon loolu moo tax du déglu ay avocat xam na lu parce que les gens disent que ni. du déglu ay avocat loolu wax man dégguma ko. non man recevoir naa fii maître Moussa Diop mu sax mu confirmer ko. Moussa Diop man moom ci avocat yi la bokk. avocat la. mooy ci la bokk. bokkul ci avocat Sonko. waaw léegi nag kooku du mu a waxee loolu. na moom su bokkoon ci avocat dégg naa moom ma ci dégg naa du ma ci du ci du ci dox. parce bi am. du dëgg bañ ko ba à un moment gis ngeen organisation bi amoon avec les avocats du président ñoom si boppam ñoom ñoo doon génnee la communication bi nga xam ne les patriotes si adapté non mais non mais honorable non mais honorable ñàkk dëggu avocat weesuwul tey jii ca procès ba ci fàttali ba tey ñu dégg merci Récré ni nii. non mais xam nga nañ ko may temps mu dem Ziguinchor jëli jóg defal ndànk nag gis nga le client le client et son avocat dañuy waxtaan xam lu neex lu neex ci mbirum Ousmane sonk mooy client bu xam la boo xam ne day weccante xalaat. client bu xam la buy weccante xalaat. waaw mooy li ma la wax mooy tout est sax su fekkoon ne tey jii sax man kenn waxuma dara mais logique par logique tey jii bu ngeen seetloo mais président Ousmane Sonko il a bien déroulé ba yegsi fu yegsi il a très bien déroulé. il a a très bien déroulé gars yi lu ñu moom amuñu ko. <laughs> on a daal jabanteeg nga nekk. <laughs> xool la kii déroule en erreur yi nga xamante ni peut-être moom def. depuis loolu moo moo moom moo tax ñu coincé leen a bien déroulé kay ñoom ñooy déroulé. luñ def ndax fu mu ne nii génne nañ leen ci fichier bi. waaw léegi non déedéet on les déroute ñu ñooy déroulé

dem na CDC déposé na caution jox nañ le mandataire ay euh, quittance am moo ngi ko téye ci loxo te ba fu may waxee yow ti nii nii nii nii gisaguñu huissier bu ñu delloo ab chèque. ah kenn joxagul leen xaalis bi <laughs> gisuñ ko de. xaalis bi kenn retourné gu leen. Ah, déedéet gisuñ ko de. lu tax ah ñun ma suñu mandataire de gisoo xanaa kii bi communication ayib bi hier nuit. vers vingt mooy communiqué bi ngeen génnee. waaw. ah mais ñoom tamit bu dee tamit nee nañu kay mënuñu nangu li nga xamante ni moo di seen koppar ndax nekku leen ci fichier bi. kon kay wa ilaa ah, xaalis bi kay waroon na ci toppaale. Ah, en tout moom mu ngi léegi lu ngeen di xaar pour dem récupérer ji seen koppar. ni ñu koy récupérer. yéen ko yóbbu woon de. Ah, ñun dañ ko yóbbu parce que dañ ay candidats ñi candidat yi dëppoo demee ñoom ñu ñoom ñu gàntal waaw ñoom noo ñoom ñoo xam lu tax ñu dawaat toppaat presse bi di wax xam nga bu fekkoon ne ñu ngi ñoom seen logique wala am nañu xam-xam dinañ do dinañ am neneen ni ñu doxalee lu dul di di jël di jël caution président Ousmane Sonko pare di toppaat naan non non dañoo nangam dañoo def nii kii bi dafa am leneen lu mu war a àndal loolu yéenewul maanaa yow tam alors sa leader recevoir li nga xamante ni moom moo di ses alliés depuis keroog recevoir na président Habib Sy recevoir na di Fall euh, ñoom ñëpp ba ñu génnee aussi euh, wax naka lañ ko gisee wax ni vraiment mu ngi ci forme et que arrêté na li nga xamante ni moom moo di grève de la faim bi mu nekk sax information bi nga xamante ni ñoom ñoo ñu ko baaxee ndaxte euh, grève de la faim bi sax bi mu ko dooraatee nii euh, ñu bëri xamuñu woon euh, yëf yi fan la mujj mais ñoom bi ñu demee seeti ji ko ba génn ci la ñu waxee ni arrêté na grève de la faim bi et que mu ngi ci jàmm mais dafa recevoir ay alliés am koo xamante ni. aliyem la woon bokkoon ci ay jegeñaaleem Barthélémy Dias def révélation ni Ousmane Sonko dafa bañ a recevoir Khalifa Ababacar Sall pour lan <laughs> logique par logique du mu koy du mu koy recevoir fu wax fu wax ak moom la lan. nitam la woon démb tey soo ko ñëw. waaw moo moo àndoon na moom ba entre temps li xew jël na yoonu boppam kay na res nekku na res ku nekk na respecté yoonu boppam rek. dëgg yàlla nag amuñu benn commentaire bi nga xam ne war nañ ko mën a def ci choix yi nga xam ne tey jii le président. Khalifa Ababacar def na ko mais aussi tamit baax na ñoom aussi tamit ñu bañ am benn commentaire ñun aussi ci choix bi nga xam ne tam def nañu. mais pourquoi ngeen di woy di guerre guerre bi lañ comprendre sachant que ni maintenant tàqali ko ngeen. ngeen leen ci li nga xamante ni moom moo di Yewwi bi. Mhm. ñëwaat dàqal leen ci li xamante ni moom moo di. groupe parlementaire bu Yewwi Askan bi. Mhm. kon kay gi war na fin. Ah, en tey amu leen satisfaction ce qu'il faut ce qu'il faut se dire euh, def nañ seen choix jël nañ seen yoonu bopp. nañ ñu bàyyi ak suñu yoon. loolu lay dëgg de yéen yéen leen poussé vers la sortie. non non non ah, moo dem dialogue ñoo dem dialogue wala ñoo dem kan moo bàyyi yeewu askan bi dem dialogue mais demee dialogue aussi waxaaleel na leen. déedéet waxaaleel. ndax xarit bu mu demee kii dem ba ñoom ñu dem ba signé signé pour dissoudre peut-être assemblée nationale. non non non buñ doon waxaale nañ ko dinañ voté ay ay dinañ voté ay loi yoo xam ne dana permettre ñu am ay élections libres transparentes et keroog ba doyen doyen Cissé taxawee ci pupitre bi ñëw nen mënuñoo mënuñoo mënuñoo réparer injustice di créer beneen injustice keroog dañoo dañoo dañoo dañoo suspendre plénière bi dañoo suspendre plénière bi waa bennoo kenn du fi tudd kenn du fi plaider Ousmane Sonko bañ bañ njëgu si waatee ñépp ne miit maanaam jox la chantage la dialogue bi jaaru chantage rek la mujjee donc donc ñun ñu ngi suñu yoon man je pense que on sere serein dans ce que nous euh, ku ci nekk naal na na na nga jubli si sa yoon ñu dem ay élection euh, yàlla ku mu def nga gagné nga diriger mais en ce moment là le président Ousmane Sonko il est concentré sur autre chose. lan mooy il est concentré. lan mooy ñuul ci sawli ba tey sur ses alliés. il est concentré sur ses alliés et ses militants. mais lan mooy ñuul ci sawli ba tey. xam nga xam nga ci diggante ci diggante Khalifa Sall ak Ousmane Sonko ba tax tey jii wóolatu ko ba war ko war a mën a recevoir. man je ne ferai pas de commentaire là-dessus parce que loolu c'est dépassé ñun ñu ngi ci leneen. oui non non non loolu duñ ci wax. non mais Ousmane Sonko ñu tëj ko mu nekk ci ay jafe-jafe. ma ne duñ Khalifa Sall demande permission pour seeti ji rakam ñu bañal ko ko ñu ngi ci leneen ñun weesu nañ foofu fi ñu nekk noonu wuu loolu jàll nañ ci loolu duñ ci waxaat yàlla bu la dimbalee doo gesu bu la yàlla dimbalee doo gestu. yàlla da leen dimbali. waaw yàlla dimbale nañu de. nu mu leen dimbali yàlla dimbale nañu muural nañu président Ousmane Sonko kooku xam nañ ko ndax li xew ñi yëpp mënoon naa demee neneen waaye yàlla mu ñu ñuy sutura. nga bëgg wax foofu. am nañ constance am nañ capacité de résilience on est très bien organisé xam nañ élection bu ñu fi organisé ñu gagné ko loolu yàlla ñu ci dimbale ci lañ ne. d'accord. alors euh, honorable parrainage yi yaa ngi koy junj sànq. wax dëgg neex yàlla bi ngeen ko dooree ba tey aussi tamit engouement bi ñu nemmeeku ci yéen nemmeekuñu ko ci yeneen candidats yi donte ni nag ñu ngi dégg yeneen candidat yu mel ni comme waa benn bokk yaakaar euh, ni ñoom am nañ ñu toll ci 3 millions de parrains yéen nag gisuñu leen ngeen prononcé wu ci wàllub chiffre mais gis nañu engouement bi nga xamante ni yéen a ngi ci ci réseaux sociaux yi yëpp par par rapport ak collecte bi euh, maa ngi koy wax keroog Chosman di collecté ba pare di barkeelu ci yéen lañ ko gisee. waaw mooy li ma la wax rek. Euh, yàlla dimbale nañu loolu yëfu yàlla la du kàttanu sax nit yàlla mooy téye nit rek teg ko ci kanamu ay nit dimbale ko ci lépp nag lu mu def ak lu mu wax rek mu barkeel nee naa la ñun ak ñu ñu àndal ils ont compris ils ont compris lan mooy le projet PASTEF xam nga sànq maa ngi maa ngi lay wax ne ni ñun mun nañ am suñu ressource interne yoo xam ne moom la ñuy euh, nattee budget bi nañ ñu sénégalais yi tey tegoon président Ousmane Sonko premier budget bi soixante dix pour cent yi wala quatre vingt dix pour cent yi boo moytu ci sénégalais yi lay jógee. parce que xam nañ ko ba pare tàmm nañ ko tàmm nañ mën a jox leen du barkeelu leen ñu barkeelu tàmm nañ ko pare président Ousmane Sonko bu waxoon ne tey jii budget bu dix mille dix mille milliards laa bëgg. day am dix mille eh, milliards bi nag moom war ngeen ko dakkal nag. Ah. am ngeen xaalis léegi. seen i partisans yi non amul xaalis xaalis moom xaalis bu ñu ko am amul tax du ñu am xaalis dañoo jóge ci suñu yoon dafa métti penda suñu yoon dafa métti peut-être ñu bëri duñu xam en interne qu'est-ce qui se passe mais xoolal ñaata xale ñoo dee te bokk ci ñun xoolal ñaata xale ñoo xam ne tey jii ñu ngi tëdd ci lalu hôpital ñii seen loxo dafa dagg ñii mënuñu jóg parce que bal da leen a dal ci ndigg ñii dañ leen a amputé de la main ñaata suñu ñaata xale tey jii ak suñuy mbokk patriote ñoo nekk prison ñun munuñu am ñun lu ñu am dañ koy bokk ak ñooñu moo tax nga gis ñi def semaine de la liberté di seeti seen i mbokk di seeti jigéen bi nga xam ne tey jii mënul gis ca këram wala di seeti yaay joo xam ne mënul gis doomam on a fait Bakel on a fait Kédougou on fait partout dans le Sénégal même désarroi ngay gis mag bu wax ak yow ñaari baat daal di jooy jigéen bu wax ak yow ñaari baat ndax gisul jëkkëram daal di jooy ndax lu baaxoon ci kër gi moom moo koy rey ñooñ ñoo nekk ñii ñoo nekk prison ñii dee nañ mel na ñun naka lañu mun a amee xaalis bu ñu ko tuddee suñu bopp lan la ñuy def lu ñu dajale boo seetloo suñu situation yépp suñu dajalee xaalis rek am dal lu dal suñu kaw est-ce que ñun ñun ba ñuy ñëw du réew boobu lañ xalaatoon ñun on est des sénégalais bon suñu carte d'identité bu ñu ko génnee nationalité sénégalaise la on est fier de ce pays là. on aime sa pays plus ko tout mais nax la ne nekk rek rek rek rek rek rek man maay nguuru ilaa yow mi di loolu du am du mun a nekk. d'accord honorable moo tax. oui fu ñu toll ñun il faut que ñuy majaal il faut il faut il faut il que ñuy barkeelu barkeelu bi moom mooy tax vraiment ñu mun a dimbalee ko ak ki kii yooyu la ñu mën a dimbale vraiment ñi nga xam ne tey jii wax dëgg yàlla situation bi tey jii dafa am dafa tégg témbe ci ñoom suñu barkeelu boobu moom mooy tax vraiment ñi mën a di di photocopier su ñu de parrainage di ko yóbbu ci commune yi di ko yóbbu ci village yi pour que ñu mën a parrainer d'accord honorable ah, yéen élu yi yéen ngi réserver li nga xamante ni moom moo di seen parrainage